def nañ conférence de presse pour naqarlu décision conseil constitutionnel bi te bëgguñu ñu woote dialogue yi fii saa si ñu naqarlu doxalin waa ginnaaw conseil constitutionnel la mu jël mooy assemblée nationale ba ñu def am na député yu ko mer ba fut wallaay wallaay Rose Wardini daal ne teggi naa sama tànk bokkatuma ci élection yi kon Anta Babacar Ngom képp kott dong mooy xale bu jigéen bi nar a bokk ci élection yi Sénégal yi ñu dëgmal ndax balaa mbir di jeex am na ñuy seetlu jàmmkat yi nen bu ñu bëggee def tension bu ñuy apaiser bu ñu libérer xale yi ba ñu génn bu ñu waxee li tax ñu jàpp leen wala liñ leen jàppee wala biñ leen jàppee liñ leen doon def ci biir kase yi dënn yi day jugaat ministre Issakha Diop dal ne dafa am ay lobi yu nekk bitim réew mu ñu jaxasee Sénégal ba réew mi tàkk ñu fab suñu pétrole ak suñu gaz loolu rekk leen yitteel Aliko Dangote am na nu mu nar a raxaatee Sénégal loolu la journal bi bind ci mbiri phosphate yi waaw waaw quatorze milliards la yoral ñiy tonni mbalit yi moo tax ñu téye seeni loxo Dakar foo romb mbalit maa ngi ne guuj waa ji cees dafa dem seeti as coroom coro nag daa am jëkkër mu fàtte fa mbaxanaam dëpp di ko jël fekk fa borom kër ga mu dóor ko birig waa ji jaaree faatu ñendoog jàmm